juróom benn toolu aljana ak payu bàkkaar
salaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faw am nanu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub tey nag nu ngi wéy ci sunu njàng ci lu jëm ci la xewoon ca njalbeen ga jàngoon nanu ba noppi ci tawret ne ci juróom benn fan la aji sax ji sàkk asamaan suuf géej ak li ñu ëmb lépp gisoon nanu it ni yàlla binde nit ku jëkk ka ca juróom benneelu fan ba yàlla sàkkal nit ka yaram ak ruu yàlla bindi yaramu nit ci pënd suuf ba noppi sol ko ruu gudul wey mukk yàlla sàkk ruuwu nit ci melokaanam loolu dafay tekki ne yàlla soloon na ci ruuwu nit xel mu rëy ba nit mën a xam yàlla te mu may ko xol ba mu mën a bëgg yàlla te it yàlla dénk nit coobare ba mu mën a am sañ-sañu tànnal boppam déggal yàlla walla bañ ko déggal gannaaw ba yàlla sàkkee nit ba noppi amoon na yeneen yëf yu mu façon yéene def laata muy mën a noppalu ci liggéeyam ci yëf yooyu lanu bëgg a gëstu tey kon nag mbokk yi nanu wéy ci ñaareelu saar wi ci téere njalbeen ga li ko tàmbalee ci aaya juróom ñaar mbind mi nee na noonu yàlla aji sax ji bind nit ci pëndu suuf sol ngelawu dund ci paxi bakkanam nit daldi nekk boroom ruu naka noona yàlla aji sax ji jëmbat tool ci biir àjjana ci penku ba tàbbal ca nit ka mu sàkk mbind mi dafa nuy nettali ni yàlla jëmbatale nit ka mu sàkk tool bu rafet te neex ñuy tudde tool ba toolu àjjana am na ñuy xalaat ne toolu àjjana fa yàlla tabaloon nit ku jëkk ka mu ngi woon ci kaw ci asamaan wante mbind bi dafa nuy wax ne ci àddina la nekkoon ci penku amaana fi réewu iraq nekk tey mbind yonent yi day ràññatle toolu àjjana ja nekkoon ci kaw suuf ak àjjana ji nekk ci kaw ci jataayu yàlla ci aaya yi ci topp mbind mi nee na yàlla aji sax ji saxal ci suuf si lépp luy garab gu rafet a gis te neex a lekk mu def it garabu dund ga ca digg tool ba ak garabu xam lu baax ak lu bon genn dex doon jóge ci ajana ngir suuxat tool ba te bu jóge foofa seddaliku def ñeenti seli yoon ndox yàlla aji sax ji jël nit ki maanaam adama tabal ko ci biir toolu àjjana bi ngir mu koy bay di ko sàmm naka noonu gis nanu ni yàlla defarale nit ku jëkk ka di aadama béréb bu neex bu mu mën a dëkk ci naataange gu mat yàlla dugal na ko ci tool bu naat bu fees ak garab yuy meññ ay meññeef yu rafet a gis te neex a lekk fépp fu aadama mën a xool bët yem ci tool yu rafet nopp bég ci picc yuy sab ci garab yi bakkan yëg xetu tóortóor yi gilli ci tool bépp yàlla mayoon na aadama lépp ngir mu bànneexu te jàng nanu it ni yàlla ci mbaaxam dénke aadama sas wu neex te woyof muy sàmm tool ba ngir mu njaxlaf li gën a neex ci lépp li xewoon ci toolu àjjana moo di bés bu jot bu ker gi seddee yàlla moom ci boppam doon na jaar ca tool ba ngir waxtaan ak nit ki mu bind ci melokaanam lu tax yàlla daan gane si nit ki ndaxte ni nu ko jànge woon ba noppi yàlla bind na nit ngir mu mën a bokk ci moom waxtaan ak moom te bég ci diggante bu neex ak moom ba faaw. léegi nag am na leneen lu nu war a xam ci lu jëm ci tool ba yàlla tàbbal nit ku jëkk ka ca digg tool ba yàlla defoon na ca ñaari garab yu am maanaa genn gaa nga tuddoon garabu dund gi ga ca des garabu xam lu baax ak lu bon yàlla def na garabu dund gi ca tool ba ngir fàttali aadama ne dafa bëgg nit bokk ci dundam gu dul jeex ci lu jëm ci garabu xam lu baax ak lu bon nag yàlla def na ko ca digg tool ba ngir nattu aadama déglu leen li mbind mi wax yàlla aji sax ji sant aadama ne ko man nga lekk ci garabi tool bépp waaye bu lekk ci garabu xam lu baax ak lu bon ndaxte bés boo ci lekkee keroog faawu nga dee lu taxoon yàlla aaye aadama garabu xam lu baax ak lu bon ndax yàlla dafa ngott ngottul de wenn ci ay turam sax mooy aji yéwén ji yàlla newoon na aadama mën nga lekk ci garab yépp ba mu des benn ndax loolu ndigal lu metti la woon déedéet yàlla ci yiwam mayoon na aadama lépp ngir mu bànneexu gàntuwu ko ci dara lu baax wante yàlla ci pexem tegoon na ci kanamu aadama natt bu woyof ngir aadama mën a won yàlla ne bëgg na ko bay sàmm ndigalam ni ko borom bi yàlla waxe ci kàddoom ne ku ma bëgg dina sàmm sama kàddu ku ma bëggul doo sàmm sama kàddu yàlla bëggoon na nattu mbëggeelu aadama te gis fu xolam tollu looloo taxoon mu jox ko ndigal yàlla sàkkul woon nit ku mécanique waaye nit ku am xel ak xol ak coobare ngir mu mën a tànnal boppam bëgg yàlla ba déggal ko lan la yàlla waxoon ne mooy dal aadama bu lekkee ci garab gi mu ko aaye woon nanu jàngaan mbind mi yàlla aji sax ji sant aadama ne ko bul lekk ci garabu xam lu baax ak lu bon ndaxte bés boo ci lekkee keroog faaw nga dee xamaloon na aadama ne dégg di ndigalu yàlla dee lay jur waaye yàlla dafa soppoon nit ki mu sàkk moo tax mu artu ko ci baat yu leer nàññ ne aadama soo ma déggalul dinga dee ndaxte sama yoon wu sell wi dafa dogal ne bakkan bi def bàkkaar mooy bi wara dee xëy na am na kuy laaj lan mooy bàkkaar mbind mi nee na bàkkaar mooy jàdd yoonu yàlla bàkkaar mooy aw sa yoonu bopp bàkkaar mooy lépp loo xam ne dëppoowul ak coobare yàlla lan moo wara xew nag ak képp ku tooñe nii yàlla mbind mi nee na peyug bàkkaar mooy dee bakkan bi def bàkkaar mooy bi wara dee lan mooy dee nag am na ñuy xalaat ne dee mooy nga bañatee nekk lépp daldi jeex te xamatuloo dara wante sunu sukkandikoo ci mbindi yonent yi dinañu gis ne dee tekkiwul loolu ci mbind mu sell mi ci làkk wi ñu ko binde dee dafay teggi tàggoo dee mooy tàggoo ak dund gi bi yàlla waxee aadama bés boo lekkee ci garabu xam lu baax ak lu bon keroog faawu nga dee dafa bëggoon a wax ne aadama soo lekkee ci garab gi ma la aaye ci bés boobu dinga dee maanaam dinga tàggalikoo ak man soo ma déggadilee dootuloo mën a am diggante bu jege te neex ak man ndaxte man ku sell laa te mënuma dékku ñiy bañ sama yoon dàqoon naa lucifer ak malakaam yi bi ñu defee bàkkaar te dinaa la dàq itam soo defee bàkkaar te it soo lekkee ci meññeefu garab gi ma la tere sa yaram dina tàmbalee màggat di wow te ca mujj ga dina dee maanaam sa ruu dina tàggoog sa yaram te yemul foofu soo ma dégg dilee du sa yaram rekk moo wara dee wante sa ruu dina mujj a nekk ca béréb ba ñu sàkkal seytaane ak ay malaakaam te foofa dinga tàggalikook man ba abadan kon nag gis nanu ne bàkkaar day jur ñetti tàggoo yu metti ci bu jëkk sa ruu tàggook yàlla fii ci kaw suuf maanaam doo am benn digganteeg yàlla aji sell ji ndax bàkkaar bi nekk ci sa xol ñaar sa ruu tàggook sa yaram bés boo faatoo maanaam sa yaram dee sa ruu dajeek yàlla ñett sa ruu ak sa yaram tàggalikook yàlla ba faaw ci déegu safara si kon nag ci kaw sañ-sañu kàddug yàlla lan mooy dee ci tënk dee mooy tàggook yàlla aji dund ji moom la kàddug yàlla di wax peyug bàkkaar moo di dee bàkkaar dafay tàggale nit ak yàlla mi di mbënnu dund gu wóor gi yàlla ku sell la te mënula dëkkandoo ak bàkkaar bakkan bi def bàkkaar dafa mel ni caru garab wu ñu dog sànni luy xew su fekkee ne car wi bokkatul ci garab gi car wi ñu dogoon ndax mu ngi dund déedéet xob yi duñu wow ci saasi naam wante ñu ngi dee naka noonu su fekkee ni mësuloo nangu yoonu mbaalu bàkkaar wi yàlla tëral xëy na xalaat nga ne yaa ngi dund wante mbindi yonent yi nee nañu fa kanam yàlla dee nga ci say moy ak ci say bàkkaar seeni ñaawteef ñoo dox seen diggante ak yàlla seeni bàkkaara leen nëbb xar kanamam danga mel ni car wu ñu dagg ba mu wow car yu wow nag dañu leen di buub sànni ci safara ñu lakk car wu nekkul ci garab gi amatul benn njariñ ndaxte mënula meññ daa noonu la bàkkaarkat mel fa kanam yàlla mënula meññ dara lu neex yàlla ndaxte amul benn digganteeg yàlla mi di garab gu wóor gi di mbënnun dund gu wóor gi àtte rekk lees di def bàkkaarkat bi teewul nu ngi sant yàlla ndaxte ci mbind yonent yi yàlla feeñal na ni nu mën a jube ci kanamam te xam bu wóor ne sunuy bàkkaar deñ nañu ci xabaar bu baax boobu lanu fas yéene gëstu ci njàng yi di ñëw bala nuy àggale danu bëggoon a jàng li nekk ci desitu saar wi mbind mi nettali na ni yàlla binde woon jigéen ju jëkk ja déglu leen noonu yàlla aji sax ji ne wéet baaxul ci nit dinaa ko sàkkal ku koy dimbale te méngoo ak moom naka noonu yàlla aji sax ji nelawloo aadama nelaw yu xóot te ba muy nelaw mu rocc genn ciy faaram fatt fa mu ko jële ak suux yàlla aji sax ji defar jigéen ca faar ga mu jële ci aadama indil ko ko aadama ne kii daal yax la ci sama yax di suux ci sama suux dees na ko tudde jigéen ndaxte ci góor lañu ko jële looloo tax góor dina génn loxoy ndeyam ak baayam ànd ak jabaram ñu nekk benn góor ak jigéen ñoom ñaar ñépp yaramu neen lañu defoon te amuñu ci kersa noonu gis nanu ne sëy ci yàlla la jóge yàlla sàkkoon na genn góor ak jenn jigéen ngir ñu mën a bëggante bokk dund te am njaboot guy màggal yàlla yàlla mi bëgg aadama te bëgg mu am mbég mu mat sëkk mu jox ko may gu baax lool muy jabar yàlla dafa bëggoon aadama fonk jabaram te di ko dundal bëgg ko ni mu bëgge boppam yàlla dafa bëggoon am diggante bu dul jeex ak ñaar ñooñu mu sàkkoon yàlla dafa bëgg ñu xam ko bëgg ko te déggal ko ba faaw kon nag ci juróom benneelu fan ba yàlla àggale woon na liggéeyam bi di sàkk dunyaa bi déglu leen li mbind mi wax yàlla gis lépp li mu def fekk lépp baax lool ngoon jot suba dugg muy juróom benneelu bés ba noonu asamaan yi ak suuf si ak li ñu ëmb lépp mat te juróom ñaareelu bés ba fekk na yàlla matal jëfam mu noppalu ca juróom ñaareelu bés ba ci lépp li mu liggéey noonu yàlla barkeel juróom ñaareelu bés ba def ko bés bu sell ndax li mu ci noppalu liggéeyam bi mu sàkkee lépp lu tax yàlla noppalu ca juróom ñaareelu bés ba ndax dafa sonoon déedéet yàlla du sonn mukk mbind mi dafa ne yàlla noppalu na ndax matal na jëfam lépp matoon na looloo tax yàlla noppalu ci liggéeyam bépp ca juróom-ñaareelu bés ba looloo taxit mu am juróom-ñaari fan ci ayu bés gi mbokk yi nu ngi leen di gërëm ci déglu bi ci émission bi di ñëw ci coobare yàlla dinanu gis ni bàkkaar duggee ci àddina si wante su fekkee ne am ngeen ay laaj ci lu nu jàng tey bind leen nu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla barkeel te ngeen xalaat bu baax ci li kàddu yàlla tëral naan peyug bàkkaar mooy dee waaye mayu yàlla mooy dund gu jeex